nasrun min allahi wa fatun xaribun wa basrul muminina borom nasrullahi diina jaay amdun wa sukrun lillazi adama salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokki julli yi parcours dans le monde ñu ngi leen di siyaar di leen baloté ak di leen bal ak di ñaan yalla bo nu bal ci suba altiné di ñaan borom bi nak nangul nu defal nu dégg bu ak top ubi xel yi leral xol yi lool te sawaral cër yi ba ñëpp bëgg yàlla seen borom te gëm rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bëgg xaadimal Moustapha te nangoo jëf lu ñuy jariñ te yàlla musal lu ci jëf lu ñuy lor ñu ngi jeexale woon bind yi ñu nekk ci jëf ci farata yàlla yi te xamoo lan moo ciy farata te mu kàllaf mu nek wara xam ay faratam ba nopi tam xam ay sunnam borom xam-xam mi dajé waxtan ni ku japp niñ war a jàppe te xamoo faratee njàpp sa baaxut ñi ni ko sangu set ni ko wara sango te xamoo farate sa sangu baaxut ñeneen ni ku julli julli juróom yépp ba julli jeex tax mo farata yi sa julli baxut naka nonu même budé aj makka la da nga wara xam lan moy farata ci jëf ji ngay jëf ak lan moy sunna ci jëf ji ngay jëf ak lan moy luñ sopp ma waxon la buñ la laajee lan moy farata neel lu yalla wax c'est exécuté dañ ko wara jëf kenn war cee delloo dara yalla bo waxee rek dañ ko wara jëf buñ la laajee lan mooy sunna neel lu yonent bi wax alayhi salaatu wasalaam teg ko ci farata yàlla moo tax ñu naan farata ak sunna farata mooy yàlla sunna mooy rasulullah li cees nag ay mustahab la waxi gaa yu baax yi dangaa war a xam loolu ni farata kenn du ko bàyyi dañ ko war a jëf léegi nag loolu ñu waxoon nag ni boo jëfee ba jëf bi jeex te xamoo ci loolu def naa ko ni ko nit ñi waxee jëf naa ko ni ko nit ñi waxe wala jëf naa ko ni ko ni ñi jëfee baaxut ba tegal la sax ni jëf ji day mujj soppaliku bàkkaar ci yow ci la ñeneen ñëwaatoon ginaaw bi yeneen boroom xam-xam ni jëf ji baax na ndax yéen a ji nga am ak effort yi nga def boo liggéey bu ñuy fay nit ñi dañ lay fay nañ leen dañ dañ lay fay nañ leen di fayee loolu wax ci bindu tey bi mu ngi lay njëkkal ci <coughs> mu ngi lay ñëwal ci suma salatuhu صحيحة إشان نوى أداء فرد ربه وليس سا اسم ولا هسيان لهدم بحث مع الإدخان أما لسي خال إمام العوفي رحم الله المسل الخوفي fa saaka tahdidun wa tanbiun mahan nasiatan li si li si dalalin fasmiha bind baa ngi noonu kon dafay wax ni Yalne xewal sun borom nga gëna wër nek ci ki jëf-jëf ji ndax bëgg lu baax bu ko kenn découragé nit kuy jëm lu baax jëf ba nopi ngeen ko jëf ji baaxul day découragé nit kon na xam summa salatuhu top julem ga donte xamul farata ya saxiixatun lu la isan foofee demal ci buj gi nga ne isaa danga koy boole nawaa bi gis nawaa njéem yéene woon na bi muy julli walla bi muy sangu wala bi muy jàpp adda a fardi rabbihi jooxal farate boromam su fekkee yéene woon na ko rek ne moom fas yéene def farate yàlla fas yéene sangu set fas yéene julli ñàkk a xam farata gi ak ñàkk a xam sunna yi du tee yàlla nangul ko ko ndax bëgg bu rëy googu mu def ndax boo seetee la monde bi fi mu nekk ñi nekk musulman presque soixante pour cent wala sax quatre-vingts yi xamuñu seeni farata ñii ay jigéen lañu ñu ngi ci àll bi nekk di testis di liggéey ñi ay góor lañu ñi dem nañ ba doon mag yàlla doog leen a xeetal ci diini dellu jàngiwaat ko ca suuf source ba day xaw a jafe ci ñoom kon buñ del see rek ngir xir ngir jox yàlla seen bopp seen jox yàlla seen borom seen bopp jëf dañuy jëf yàlla ci mbaaxam da koy nangu donteel nag ki xam farata moo ëpp tuyaa xamul farata ku nekk xam na ni oto boo koy dawal mën a dawal ba noppi am permis moo gën ngay dawal te amoo permis ba mënoo dawal jëf jooju mu jëf walay sa saa ismin amul bakkaar ndax ñii paase woon dañ laa wax ni jëfam ci bakkaar la mboolem lu mu jëf bakkaar la wala hisyaanin jëf jooju mu jëf du ak mooy yàlla boroom xam-xam jiit woon am nañu waxoon nii lu mu jëf sax ak mooy la lu tax du am bakkaar ci jëf gi te jëf gi du ak mooy mooy mooy yàlla lu tax li xadama bax si ngir ñàkk gi mu ñàkk gëstu ji ba xam farataam rek moo tax nga ne ko loo def bakkaar la wala ñàkk gi mu ñàkk gëstu ba xam ay sunam moo tax nga ne ko li mu def bakkaar la maa it xaan ni ànd ak am compétent maanaam xereñ maîtriser li ngay def moom maîtriser wu ko rek compétent wu ci rek tax nga ne ko loolu def bakkaar la déedéet wala sa saa ismin wala isaanin jëf ji du bakkaar du mooy yàlla jëf ji baax na te yàlla da koy fay mu ne amaan ah, la si la nga xam ne xaala waxoon na ko al imaamu aw fi ndax imaamu aw fi muy imaamu malik ma waxoon wax ji ni jaaduwul ci fu muy jëf te xamu ko bu jëfee te di ni mu jëf xamu ko day am bàkkaar ñii nee nañ loolu imaamu malik waxoon rahimahullah yàlla na yàlla yërëm ko moom imaam al musul xaw fi ki nga xam ne mooy dindi ak ci nit ba nit ka am fit taxaw dëggal boppam jaamu yàlla wax jooju mu waxoon fa saaka wax jooju tahdidun daa bëgg rek nga gindiku wa daa bëgg rek nga yeewu la ci jubloon ma xam boole seen waaye nasihatin ak laabire la li si dalaali ngir kiriir mu dem jàngi moo taxoon mu di ko wax bëgg kiriir mu jaral ko mu dem jàngi ki xamut mu dem xam lu ji moo tax mu doon la xub doon la tiital waaye jëf ji nga jëf baax na fas maha yow miy jàng yow mi may diglu déggal wax jii ma la wax moo gën a wér jëf ji baax na ndeysaan wax ju wér la kon nañ ko déggee noonu dañ di doon xupp di ko tiital di ko laabire ngir bëgg nga gëstu ci te jàngi moo taxoon wax la wax ji waaye jëf jim jëf baax na loolu moom la yeneen xam-xam yu bari ci lañ dëppoo wuute ak imaamu aw fi la mu waxoon ni jëf ji baaxut ba noppi sax bàkkaar la déedéet du bàkkaar jaamu yàlla du doon mukk bàkkaar yiw rek la mën a doon kon nga dalal sa xel yow miy jàng bu ko defee ñu ngi dellu ci waxtaan wi keroog waxoon naa leen faratay njàpp yi mu doon ngir bëgg ñëpp bind ko te xame ko muy yéene raxas sa ñaari loxo raxas sa kanam te mooy mu laa bëgg a wax massa sa bopp raxas sa ñaari tànk ak gaaw ak ragg juróom-ñaar yi mooy faratey njàpp note leen ko ki jàng ba xam jëfe yi nuruwut ak ki nga xam ne day jëf te xamut sàkkaan ki nga xam ne jëfut xamut ki jàng ba xam te jëfe mu ëpp tuyaaba fuuf ñaar fukki point ak juróom-ñaar ka ki nga xam ne mi ngi jëf te xamut ni jullit ñaari nit ëppoo ëppee fay tuyaaba jullit kenn nit jullit ñett nit noonu la ëppee tuyaaba jullit mbooloo noonu la ëppee tuyaaba tey mi ngi lay jàngal faratay julli comme man nga jàpp faratay julli am na benn wuute bi ñuy wax roy sa imaam dañ ko cee boole kon bu dee yenn téere yi fukk ak ñeent lañ la wax quatorze jàpp ko yeneen téere yi wax la fukk ak juróom kon boo amee quatorze points yi nga xam ko loo jaamooti yàlla yàlla nangul na la ko boo amee quinze yi nag loo defati yàlla nangu na ko ku xamul quatorze yi xamoo quinze yi la gaa yi waxoon ni li nga def baaxut maa ngi lu koy limal benn par benn ndax nga xam ko ba ci jëkk mooy yéene ci farata yi julli xam nga julli kees farata la moom mi am farata dafa am ay farata kon bi ci jëkk mooy yéene bindal ba ca topp mooy kabaru armal mooy bi nga yëkkatee sa ñaari loxo mu jëm kaw kabar bu jëkk ba nag la wax nga wax allahu akbar kon kabar bi farata la taxaw ba ngay taxaw di kàbbar farata la bo jappé ñetta ngi non dug nga ci biir julli gi jangal fatia am nga farata muy ñent taxaw ba ngay taxaw di jang farata defe naa juróoma ngoog ak ban ruko farata la muy juroom ben sigi ci ruko ba farata la muy juroom ñaar أقداما محمد أوسل may la nga soufflé tuuti ma ñëw ndax nga man ko noté juróom-ñaar laa la wax acca continuel demal nga sujooti am nga juróom-ñett siggil ca jóot ba am nga juróom-ñeent yemmoo boo taxawee temb jooje ngay def farata la kon am nga fukk boo sujjóotee sax fa ba jàng sa la ngay jàng am nga fukk ak benn maanaam sa sëlmal farata la mooy salaamu aleykum jooju farata la fukk ñaar tok bi ngay tok bi ngay sëlmal farata la muy fukk ak ñent muy fukk ak ñet roy bi ngay roy sa iliman, roy iliman ji iliman ilimaan ji def nga def ko lum deful nga bañ ko def mo lay jox fukki farata ak ñent bo lima li ma la wax bo jullee jappal ni julli gi gëna sel te gëna bax yow def nga ko bind ko rek ben par ben yene kabar arman taxway kabar ba jàng fatiha taxawaayu fatiha rukkoo ak sigi rukkoo sujjóot ak sigi sujjóot yem moo boobu waxoon ci taxawaay ba ak sax ci place bi nga koy defee bul ko fàtte sujjóot ak sigi sujjóot salaamaaleykum ak jataayu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu farate julee ngook حب من به منى أداما دلي أبلاي بناما وهب من به منى أداما دلي أبلاي بناما وهب من به mbokk yi boo ko seetloo kon wax naa la farata julli ni ma la waxee farata njàpp ngir bëgg nga xam ko ba collaborer ak sa borom maa ngi la ciy tegal ni la nag boo bëggee am connexion sa diggante ak sa borom comme ni ngay connecté woo sa diggante ak sa xarit ku mën a doon composé ko numéro directement jot ko yàlla am na numéro boo xam ni soo ko defee da ko jot directement da lay wuyu numéro baa ngi ni jàpp ko yow mi bëgg a woo yàlla <laughs> ndeysaan dama bu rëy xam nga numéro yàlla bi ñu koy jotee téléphone xamoo ko soxna Mariam xam naa xam naa xam na numéro bi Mariam Amérique numéro bi mooy defal 22 numéro yàlla laa lay jox <laughs> defal 44 defal 347 22 443 47 boo composé numéro bii suñ borom dana la wuyu nga wax ko sa soxla <laughs> composé gaaw <laughs> bala ma lay leeral nag lan moo tax chiffres yi am danga koo liir ba noppi boo daree sa sikkim ba noppi ba def ni nga def ni ni jaaxle su ma doon laa wax nag numéro bii lan lay signifié waaye na nga xam ne daal boo defee 22 ci suba gi nda def 443 47 dana soné ca mom yalla décroché ngan ko alu nga wax ko sa soxla yi kon téye leen foofu ma dem te ñëwaat bunt bi mu la doon wax ci malaaka yi ci lay dugg ak yow nii waxoon na ne la malaaka yi suñu borom bi dañ leen a bind jekki wunu jekki jekki am takkante wunu ay soxna jurante malaaka du mooy yàlla malaaka du lekk malaaka du naan kenn mën ko koromp liñ ko digal képp lay def du def luñ ko digalut dafa ak akan ngoo gudd fan te moom moo supérieur jinne waaye nit mën naa dem ba romb malaaka gën koo jige boromam nit laa wax nit mën naa dem ba gën a baax malaaka gën a jige malaaka boromam ci effort yi muy def ma waxoon lan la lan moo leen wutale malaaka bu amoon cër yi nit am day def li nit ñi def day moy waaye ñàkk gi mu ko ñàkk am moo tax mënta moy kon nit bu amee cër yu koy may bànneex mu sàmm cëram yooyu du ci mooy yàlla du ci caaxaan di jaamu boroomam ba egg fi mu egg kon moo gën malaaka parce que am na lu ko waroon na gàllankoor te fexe na ba loolu téyewu ko te malaaka dara téyewu ko kon ñoom ñaar buñ bokkee arrivé ndoo ki gën a diis ëpp ay jafe-jafe su fexe ba arrivé moo ëpp tuyaaba moo ëpp doole ki nga xam ne dafa woyof ba noppi dara gàllankooru ko kon nit bu góor góorloo day daal di nekk. Khairul bariyati su góorgóorluwul day nek sarul bariyati ci sortu lam yakul ni yaa ngi yemoon ci ñoom liñ leen digal rek loolu la def tay yaangi jang ni wa annahum naka ñoom malaaka yi xalaxahum dañ leen a bind min nuuri rabbihim ci leeri seen boroom mbind nii ñoo wute xam nga doomu aadama yàlla muñ ko biñ ko bind ci ban bu ànd ak suuf boo demee ci saaru suuratu rahmaan yàlla ngi wax ni bind nañ leen min salsalin kar faqaar doomu aadama arrahman allama alquran fa nga koy fekk ñu ngi bind doomu aadama min salsalin kal faqaar mooy ban buñ jaxase menacé comme ni maçon di jële ciment jël suuf jël ndox jël xeer fopp peeram menacé ko doomu aadama noonu la bindee doomu yàlla noonu la bindee doomu aadama moo tax doomu aadama bari ay température boo ko neexee bëgg ba nga ni laa bëgg mu jekki-jekki kanam gi mu doon bëggee di ree mu fas ko ba mu ba mu ba mu dëgër bëtam yu weex yooyu mu la doon xool ngay bég mu jékki-jékki xongal ko fop ñaari tuñum ye doon ci ree ngay bég bu xëy xëy dajale ko doon la wax bu neex ngay bég ci moom mu jékki-jékki mu génne ci gémmi gi baat bu ñaaw boo xam ne nga naa kii lu mane lii doomu aadama di ñuul ba yàgg mu xees léeg-léeg mu gàtt ba mel ni yéen ñaar ñi wala mu njool maanaam façon yooyu doomu aadama am menacé biñ ko menacé te matière yiñ ko menacé bokkut moo tax mu mel noonu déglul jooju wax malaaka nag benn façon rek bu naturel lañ ko bindee doomu aadama dañ ko jaxase na nga xam ne nit ñu ko bind ci juróom benn fukki suuf yu bokkut juróom benn fukki ndox yu bokkut composition bi muy cent vingt matières lañ bindee doomu aadama moo tax benn doo benn jëmm nga mën caa fekk rangooñ fekk ca deret fekk ca meew fekk ca dët fekk ca teflit fekk ca ñaq ah, ak yeneen yu baree bari yu nekk ci biir ndox yi nga xam ne mooy ay manioc deret règle ak yeneen yëpp ñu composé ko sol ko ci benn mbuus bu tudd doomu aadama lan moo tax mu bari matière yooyu parce que composition bi ñu ko defal moo tax malaka amul lolu malaka ben matière rek la am jàppal lolu yow mi may diglu yow soxna si ak yow mi sama papa melokan bi la la yàlla bindee malaaka nag amul lolu wanhum xalaxahum min noori rabbihim ñom ci leeru sun borom ko taala lañ leen bind ñu ñaari matière ñu ñett ben rek lañ am motax ñu baax ñu ñun nak dañuy sensé ay ay couleur waanahum bind nañ malaaka yi min nu rab mi ci réer seen boroom albaxi ka aji des bilaa takk diir amul benn ndax ndax amu ci ndox mu teey xam nga nit suñ borom bi mu koy bind da ko tàmbali ci bëccëg nit eggale ko ci guddi buñ la laajee date bi kañ la neel alxames la yàlla bind nit bi 14 heures 15 heures 16 di jot la ko commencé waaye bi muy egg bind bi daa fekk timis simaase guddi gi ñëw na moo tax doomu aadama bu ko neexee ngeen ko ñëw sa soppi ko gaaw na di bu la neexee weex bu la neexee ñuul léeg-léeg suñu mbokk di ko wax di ko xase nit ki xanaa di yaa fi waxoon di nangam léegi ba yàgg nga wax di parce que dañ ko tàmbali ci bëccëg eggale ko ci guddi moo tax muy sensé couleur kon ñu ko tambali ci bëcëk égalé ko ci guddi gi waaye ci suuru alxames la egg ba seddi aljuma ñu regrouper leen ñom ñëpp ñu wara dajé waxtaan motax juma am ci waxtu woow nonu sàllaaw bu adné tukki ëlëk na nga xamné ne alxames ci ngon la adné tukki ñun ñëpp ñu fanaane alaxira gudd alxames ba seddi ajjuma di bisu dajé ba digënté guddi ak yor yor aljuma dana nekk ci ati suñu borom juróom fukki junni at lay doon parce que foofa temps amu fa heure amu fa bëccëg amu fa guddi amu fa bu dee ci nun nag da nga koy calculer lundi mardi mercredi jeudi mais foofa amul loola kon alxames ci ngoon la addunay tukki waaye ajjuma lañu ne lañu yàlla dajale pour atte jaam bi loolu tam na nga ko jàpp malaaka yi nag tasbihu rabbihim sàbbal seen borom huwa sarap moy sen nan xam nga newon woon na buñ lek amno ndekete am nañu sen pana fere fere pana fere fere bo xam mom lañu gëna bëgg ñom dañu kon dañuy lek wa taqdisuhu sallal yalla taham moy sen ñam wax ji ma la wax señ tuba neena la tarta bobul werante malaka day lek, malaka day nan. yenn gaa ni malaka malaaka duñ lek malaka du nan lan moo tax ñu ne malaaka du lekk parce que amul bàq amul boli amul fu muy lekke amul fu muy naane amul fu muy demee toilette lu tax sëñ Tuubaa ne malaaka day lekk day naan waaw parce que tasbihu rabbihim sàbbal yàlla mooy naanam subaak ngoon taxdisuhu sellal jaamu boromam taxaamu mooy lekkam kon ci sàbbal yàlla lay lekke ci sellal boromam lay naane loolu mooy palaatu bi nga xam ne malaaka moom lay jëfandikoo te sàbbal yàlla ak sellal yàlla du luy dugg ci biir di ko gonfler di ko ballonné ba di ko def loo toilette day sàbbal yàlla day defar ruux day defar jëmm day defar xel day defar image képp koo xam ne saxoo nga ko nag di nga dem ba yor melokaanu malaayika jige yàlla sa borom ci sell ak set ak yiwu na nga jàpp bindu tey bi loolu la maa ngi koy répété wanhum nak ñom malaaka yi khalaqahum bin nañ leen min nuri rabbihim ci leer seen borom albaaxi ki nga xam mo fi des fawuta du fi jóg bila takdir bind bi neen bind amul ben nax-nax tasbihu rabbihim sabbal gi ñi sabbal seen borom ho mom sabbal boba sarabu moy seen naan taqdisuhu selal gi ñi selal jaamu gi tahamu moy seen plan fere la tartabu bul sikki sàkka lii yow mi may déglu ak yow miy jàng fexeel ba xam ko boo léegi bu la laajee kan mooy malaaka nga jox ko melokaan bi nga xam ne noonu la mel ñu daal di collaborer ak yow loo defete ñu nangul la ko barakallahu fiikum borom Tuubaa na sama diine mooy mooy bëgg yàlla bëggu sax ak bëgg yonent bi nga xam ni bëgg yàlla tax yàlla gënal ko ci mboolem jaamam yi bayit bii muy jàng loolu lay firi sama diine man Xaadimu Rasuul mooy bëgg yàlla bëgg Rasuulullaay mi nga xam ne da bëgg yàlla waaye ku bëgg yàlla ku ne bëgg naa la diine hubbulaay hubban daama nasrun minallaahi wa fathun xariibun wa basrul mu'miniina borom nasrullahi diina jaa